salumi mes frères et sœurs suñuy grands les présidents d'amical communales les présidents des commissions sociales au niveau des différentes facultés ñu ngi leen nuyu yeen ñep du kontaan bu baaxa a baax sen présence li ku ko gis tay xam lu gëj am la ci union régionale des citoyens de Kaolack tay président amical 41 commune yep tay ñew nañ tew avec leur forte délégation donc juste pour vous dire que vous êtes en présence actuellement avec les en communes de Kaolack sans distinction. Parce que qui dit l'UREC savent très bien que c'est la structure qui regroupe toutes les en communes de Kaolack ici. Vous avez toutes les en communes, je veux dire. Donc nous, ngi di nous ñu ngi nous sommes ñu ngi nous nous Ousmane non seulement nous un million nous avons le nous permettre débuter mandat. si niñ ko débuté nii félicitation yi ñuy dégg wala ay encouragement yëpp tey mun naa xam ne joué nga si un rôle très important bi ñu ngi la si remercier ñun nag képp ku ñu defal lu baax dinañ tax wax wax ko gannaaw loolu waxoon nañu ne dina fi ñëw ànd ak saalum saalum yi ndëgu ak ñoom ñëw na démb yónnee fi une forte délégation ànd ak Babacar indil ñi nag boo xam ne bëri na ñoo xam ne tey mun naa xam ne pour buñ doon takk jabar bu duñ ko am ànd ak nag xaalis bu bëree bëri boo xam ne moom lañ taxawee tey journée bi donc lépp lu mu waxoon ak ñun ñu ngi seede Saalum Saalum yëpp ne def na ko fin de mois cent mille francs yi ñu diggoon aussi tamit indi na ko démb donc juste pour vous dire que lépp loo xam ne daal Ousmane Noël Dieng waxoon na ko diggoon na ko ak ñun la fois passée def na ko jot nañ ci yegg si na si ñun kon nag ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant comme ni ma ko waxee léegi du ma tirer ñu ngi kontaan bu baax a baax dañoo ne wa man laa yaskurul naasa nag laa yaskurul laaha ku santuloo doomu aadama doo sant suñu borom donc jant gi dama koy bi nga xam ne bu ñëwee fii yàlla ak moom la donc di wax ne initiative bi ngeen def nii bon kontaan nañ ci vraiment te di ñaan suñu borom euh, saxal ko ci barke weeru koor bi donc sans plus tarder ku ne xam na ne ñun ay humoristes lañ donc ci loolu la ñuy profité pour mën a bégal jàmm ñi donc comme ci weeru koor lañ nekk dafa am benn séeréer dafa jógee Kaolack yi nga xam ne mooy seen fief Saalum Saalum la bi mu yegg si wee Dakar ñu ne suba la koor gi ci ñi mu dalal ñu ne ko di nga góorgóorlu nga woor bi nga xam ne li wax naan bi yi ko waaye Kaolack ak nga xam ne yow xam nga climat bi comprendre nga yow kii wu Dakar yëpp yaa leen jeexal mu caat yeeg lépp yaa leen jeexal ba pare nga bëgg fee nekk di expliquer ay détails rek eh, mu ne bon nag dinaa jéem a essayer ma woo mais bi mu ñëwee ci kër gi daa am boo xam ne maanaam entrepreneur la ci ay chantier machon lay dox mu yegg rek kooku yóbbaale ko. koor gi premier jour bi day tar ngóor dawal ba 14 heures lu mu xool mu doon ñaar lu mu xool mu doon ñaar mënatu koo maîtriser mu jékki-jékki ne nga. Issa damay génn ci biti jéem a liggéey ci am ku ma waxal Issa ne ko en ah, mu ne ko waaw mu génn mais ku ne xam na ne Dakar ay 14 heures 13 heures et demi xale yi bu ñu wàccee pexe sax yi dañ leen di defar la fa desoon ci reer ay cere yooyu noonu mu romb tombé booy cere lañ leen defaral rek mu ne bii lay gone yi Dakar xamuñu saaj nag lii cere la ah waaye topp leen ci ñeex mi waaye wàccee leen fongo kii ngeen di séen moom wàcce leen ko rek xale ne ko waa papa Ngor xanaa wooroon na mu ne yéen gis nga alxames bi seen mbéy say si jigéen ji maa ngi koy fàtte man ngeen di wax wooruma ñam leen di wax ngeen xeeb di ñeex mi rek bu boo doolee cere kay dangay dolli ñeex ngir mu mën a lool mu xam ne fii bu essayé booy bi ko ci bàyyi mu jékki-jékki dugg ci biir tànk fatu tamaate paaleen jeeg bu jaar bi ndeysaan dugg xool ronlal bi jël la fay bagage bi mu baare ko ci buntu bi ba affaire bi sàcc sombur mu créé ko ba timis ñëw mu guux ko mu sàcc sàcce ndox mu génn ci biti sa dee gars yi di door a wàcc mu ne leen bi lay tini say saay saay dañ koy wër yëpp dañu mu ngi ci ron laal toog leen ci ci xaar saw gerte laa wax ni ndeysaan loolu de waaw e di bëggee étudiant yi yëpp nag di wax ne maa ngi leen di bëggee booy taw et eh, de tout ko laay buub li leen ndox mu tàng ak ay tàng booy taw ñaar fii donc indi leen gendarme eh, ak sa on va donner la parole au président Ousmane Ndiaye ay kaddu cant rek lay sànni après ñu tëj ndogo ndoor kaf ree waxtaan damay wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax sant yàlla mooma war man jaam bii xeew bi di Ousmane Noël yàlla indi woon na ma fii même pas deux mois ou trois yàlla indi woon ci kattan ma ñëwoon fi ci ndigalu ministre Diène Farba Sarr di sama mantoor ma ñëwoon fi am dige yi fi waxoon yàlla bu ko neexoon ma digee ba pare du am soit du ma ko def ngir fàtte ko yàlla fàttale ma ko soit du ko def ngir sàggan soit du ma ko fekkee kon yëpp war naa tax ma dëxëñ sante ko saa borom di ko wax alhamdulilahi rabbil alamin di leen gërëm yéen jaamab yàlla yi toog fii di étudiants yi nga xam ne fii gis naa fi ay kàngam gis naa fi ay futur président de la république pourquoi ay ministre de la république yéen ñi war a yor suñu réew mi ëllëg ay borom xam-xam ay borom xam-xam kàngam ñëw di xaar sama jëmm ju xeebu gi ngeen pare na ma seen bés bu sell bi ci chëwru Ramadan ngeen xam ne su ma yëkkatee kàddu seen kanam rek yaakaar ci yàlla bu yegg moo tax waaye du njiit du xam-xam du la ma mate lu dul rek ah ñëw wax dëgg yàlla lu ko waa ji waxee l'honneur ne se refuse pas ñu jox ma honneur ma ñëw di waxtaan ak yéen maa ngi la ñuy gërëm di leen sant te di leen baalu ak ci koor gi te di leen ñaanal yàlla ci daraja yonent yàlla Muhammad képp ku fi dugg di sàkku xam-xam yàlla nga mokkal diplôme yi nga ñu ut yàlla na ko yàlla may ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam yal na yàlla garanti leen ngeen dugg ci bismillahi rahmaani rahim waaye génn fekk alhamdulillahi rabbil alamin ak liggéey ak mucc jàppale seen njaboot ci barki yonent bi sallallahu Bamba sen mi nga xam diskurbi, franchement ce discours bi lu am njëriñ la discours bi tamit sa jangat ne da nga wax étudiant yi ne len mbir waroo ci dugg mu metti nga daw discours bi dama sa jangat ne da nga wax étudiant yi ne euh, mbir ba boo su duggé wax deug yalla na nga na nga xam li la jaral na nga xam ne fi indi ma def ko ba génn ci pour dem ëllëg jëriñ sama réew loolu la jangat si discours bi ne lu yomb amul ci aduna même suñu référence mu yonent yalla Muhammad mi nga xam yalla ko faral ba ko yoni ci aduna bi di façon jafé jafé bu ne jànkoonte nako et donc lu faciliter lu yomb amul ci aduna waxuma la nak jang jang lu am solo la et donc warul mën yomb waye je pense que judduwaay yi je pense limay dox man limay may moy mooy étudiant yi fexé ba seen judduwaay jàng mën yomb man de bu ma yàlla waxoon ne ma Ousmane Noël boo dëggoon fii boo taxawoon fii étudiant yëpp dëgg la étudiant yëpp nappaaji si sa kaw seen condition de vie mën a gën a jàll ci kanam seen condition de vie mën a gën a leer gën a ñu mën a gën a jàng am diplôme barki yonent yàlla Mouhamad barki Cheikh Tidiane pare naa pour yàlla teg na la tubabu pour yéen ñëpp ngeen réussir billaahi lazi laay laa wóor waaye nag ah yàlla ni mel yàlla mooy dogal ay jaamam ngeen jàpp ne ngeen jàpp ne yàllaay dogal nekkul ne

yàlla mooy wax ne diw université bi li mu rëy rëy rëy yëpp UCAD li mu rëy rëy yëpp diw sangam diw sangam diw sangam diw sangam yéen ci am niveau bi te yéen ci jëriñ seen réew ñii duñ ko fekkee ñii dañuy cartouché ñii dañuy faatu yàllaa ko dogal yàllaa ko dogal te li may wax am na fi gis ngeen ko fi waaye maa ngi la ñaanal képp ko fi nekk yéen ñëpp yaa ngeen bokk ci njëriñ seen réew ci daraja yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah di gërëm Mouhamed Thiam Mohamed waxoon naa la ne yow yaay Seydina Mohamed yonent bi sallallahu alayhi awoon na Seydina Ousmane man maay Seydina Ousmane ba nga jëlee mbir mi bees waxoon naa la laa taxaf wala taxzan inna laa maanaa waxoon naa la bul tiit bul ragal yàlla sa yàlla sa ginnaaw buñ sa kanam newoon naa la xale nga ndaw nga man ndaw laa xale laa te yàlla nag du yónni ko ñaaw du yónni ko siis du yónni ku nday du yónni ku iñaan te dara daru la góor euh, góorul lii cër bi yàlla jox la yàlla la koy joxe joxloo joxloo ko parce que nga xam-xam gaa yi joxloo ko parce que dana ngeen tudd dala ko jox parce que yàlla la cërale et donc lii la yàlla cërale rek yàlla yéen bi gën a diis waaye yàlla ko antal ba lay wax ne man de Ousmane Noël lépp lu ma yàlla dénk li ma diggee woon ne naa ko def lépp lu ma yàlla dénk ci étudiants yi naa ko bokk ak yéen barki alxuraan képp ku am soxla mu jàkkaarloog man ma mën ko naa si def li ma mën te sama mentor man nak loolu la mën waxé waxee bu mu waxé a jël munu jël lo xamné ne ko wala xaw ko wala yegguma fa way li ma mën laa yàlla di ko wërsegalé sama am-am ak suma mentor ministre monsieur le ministre Diène Farba lépp lo xamné urek soxla nako ci kaw suuf lépp lo xamné urek mi ngi koy fighting inshallah allah rabi xar sama tànk tubéy ba urek jox ko soobee yàlla donc loolu lay ooti leader yëpp damay dégg ne politique politique politique baaxul. loolu ku koy wax rek déggoo yàlla yàlla moo ne yéen ñëpp ku ci nekk naa la visité ba nga foo ne yoru laa bind kon donc politique dem na yom la xiyam bu la yàlla joxe alalu askan bi bu la yàlla tëralee da nga ko war a booleeg askan bi ba askan bi sa gis seen bopp ba ñëpp Sénégal mën a jëm kanam parce que kat maa ngi euh, di ñaan président de la République Macky Sall ne ko li ngay def ci lu social li ngay def ci lu baax ñëpp gis nañ ko waaye lépp loo mën a gën a jàppale étudiants yi ndax soxla nañ ko tous les étudiants nag waa plus particulièrement suñu étudiants yi Kaolack waa yi maa ngi oo autorité yëpp autorité yëpp bu campagne jotee ñëpp a ngi dem Kaolack yéen a ngi gaare kat-kat yi yéen a ngi gaare nanga di fekk ci gars yi xam ngeen fi nga la ñuy fekk baax et donc buy mel ni ñëw leen jël ci alal jaamu ci yàlla ci étudiants yi ñëw jàppale leen si seen xaalis si seen social étudiants yi mën a franchement gis seen bopp aussi ci mbir mi ndax kat saako bu deful dara du taxaw jàng balaa nga naan naam da nga fay ne ñun ñoo leen mën a jàppale autorités yi ñoo mën a jàppale Kaolack yàlla kenn xamul ñaata autorité moo fi nekk bala nga xam ne Kaolack bëri autorité nga dem campagne wala président Macky Sall bëgg fay ñëw nga xam ne Kaolack bëri na autorité loolu ñuy ñëw nag alal boobu nañ ñëw jàppale leen kii bu ñëwee indi un million su kii ñëw indi deux millions kii indi trois millions kii ñi jël leen ay appartement ñi jël leen immeuble pourquoi pas immeuble étudiants yi mën a dëkk mën a toog pourquoi pas pourquoi pas am na fi gars yi mën nañ ko ay meetingu ay meetingu cent vingt millions ay meetingu soixante ku ci jëloon immeuble fay ko un an mën la mën la yóbbu cinq millions loolu ni nañ ko def li laay war a suuli jàppale étudiants yi jël leen immeuble mu amee appartement gars yi logé gars yi mën foo dëkk nekk ci anam yu gën a nice anam yoo xam ne wax dëgg yàlla dinañ mën a jàng jàng bi nga xam ne ëllëg Sénégal la ñu jëriñ yal yàlla jaayanteeg yéen yal yalla fay leen yal na yàlla garanti leen maa ngi gërëm nag sama délégation bi ma àndal nga xam ne ñoo nekk suma ginnaaw nga xam ne sans ñoom Ousmane Neone rien du tout di gërëm du si du ma